ah lu moo dem ci duniya gis fa xale buy rêvé doon dara su màggee président ñi commissaire ñi traité waaye man sama choice moo doon doon waaye kat di megal ma toog di way ci kër gi lee ma nekk ndaw moo dem ci duniya gis fa xale buy rêve doon dara su ma kër ñi professeur ñi pompier Talago. <laughs> <laughs> eh da ngay féexlu de waaye gis nga. ah ah waaw waaw loolu baax na de. damaa wéet maa ngi toog depuis boobu ba léegi la. wa de xanaa ma ba bëggoon a ñëw sa gale. waaw ah. mais xam nga de heureusement yaa ngi nii. waaw waaw moom yow lay ñëw yow xam nga dafa de eh, xar. na ma lay gëng. waaw boo seetee. xaalis bi ah, sama wàll laa jël si woon xaalis banati. e eh, bo sëri da ngay naan wala da ngay tux wala da ngay yow kay laa a wax ne ngay naan am joxuñu vingt cinq mille maag yow yow joxuñu def ñoo digg rek te yàlla ma wax la def ñoo digg rek def ñoo digg nga ñëw yow eh, man du tax la eh, la déglu ma wax la la fii dofoo jinne jàpp la man booy dof doon maa la gën a naan yat bul yuuxu ci kër gi soxna si mu ngi e sama war ci xel wala ma yuuxu ndayam bul yuuxu taxal negal negal ma jox la negal man oh man nga jéem a teg xel man nga jéem a teg laaw ayo eh, maa la gën a bati bul ma jaafere bati. eh dama lay laaj ba nga mën a jëfee teg xel ayo. aboy si yow. boo a a xaalis eh, bala maa yuuxuwaat fi. Eh, xeer ko laal boo bu yuuxu la boo yuuxu ma def la lu bon xeer doo ko laal xam nga dama doon négocier di la jox. yow da ngaa yaakaar nga maa génn. waaw booy séeréer la bi. bul yuuxu ci kër gi. noppi noppi noppil ma Guinée. Samuel Samuel. da ngay tey de. la laay tey. da la ma lay eh, eh, eh, xanaa lu ma foog de yéen ay vingt cinq mille ngeen nekk di xëccoon de kii di gañ ñi kii di loxal tuñ. xam nga lu ma lay yëg ay booy séeréer defal nii. ay wan ma kanam defal nii. boo xamul bul saay nag xam bul dee la yow amoo jom amoo fulla amoo personnalité déggoo samay wax booy séeréer booy séeréer booy séeréer moytuma laa la wax. yow xeyo goro yattoo say nelaw doyul nga and ak taala mi nga xamantena dorul doorul xam nga luma lay yëgal vingt cinq na teggu sama loxo gi ah. lepp lu waron ci keur gi ya koy def dafoo dara lepp ma géré keur gi andi xaalis boo ko tee ma def lu bon eh booy séeréer andi xaalis bi eh takko fi eh, eh, dañ ko jël eh. tegal fi xaalis bi la la wax andi yépp bu ci dara manqué li ngeen di ñak fu la yeen du ma dox taw fayif bima yow yaaya yay yut maa ngi dugg ci biir nag su ma génnaatee dégg waxu xaalis naa la def lu ñaaw yow moom xam nga ma su ma la dugalee ci biir néeg bee su ma la dugalee ci biir néeg ba def la li ma lay def. Oh. Oh, bul wax loolu waaye doo dama laay ñaan doo ma jox taw fa yi bi ma dama am lu ma bëgg a lijjanti tuuti yow tey fii sa doo ko jot ma ne la sa kiwisaare ci ginnaaw néeg ba nanga ko fóot ba mu set bàyyi nga ko fa ñaari fan yow naa naa ñëw rek yow ñaar téeméer yu ma fóotee sama sereer ma sa ma délee ah! eh xoolal sa poos ba xam dara des si fii dara nekku fi xam nga ne kii luxus na ma ba ma set eh doo yuuxu de doo yuuxu réewane nga jaay eh la gën eh non sonne ah damay toj sa gat de koo eh xam nga lan moo ja doo nekk fii di yuuxu mel ni ku ñu rëy de ñàppal ndey am génn eh gi ba sere eh sere ba sama kër eh sere ba ma saawaat de ba ma saawaat de yow loo yaakaar waaw dégg nga ma la wax ma tax a génne góon xanaa déggoo olof. ma ne nga xool sa poos la ah desul dara. Eh. yow yow doo ma bàyyee wax xoolal sa poos. ah fii fi ma jaare nekk ndool yow it noonu ngay nekke ndool di ma yàggee fii mënu maa fexe ba jël benn junni ah ñu jox ñu ñeenti juni ba ñett ñetti junni ba ñeent ba juróom nga ñëw fii amoo looy def ñu organiser ndax ngay ngalala li boo soxna si ñëw nangu xaalis bi léegi perte na nga may xool sa bëtu looy yi génnal kër gi mu jeex tak taala buguma problème gënal kër gi. ma déggee. hé man xam nga xam nga la dañ doon lay mak yow suñu diggante na ku patiku olof nga man séré la bokku ñu lay bokku ñu family bokku ñu dara ya nga yondos gënal kër gi mu jeex xam nga may xool bëtu yéreem talu amo lo fi jëlati gënal ñàkkay barké torop oh, man gunge wu mala dama lay dàq gënal génnal nga naan gunge. acca way tu ma jaar na. wang si.

man sama choice moo doon doon waykat di bégal di bégle fu ma toog di way ci kër gi leen